jàmm duñu ko mën a am rek ay moom ak moom ku ko ca mere tamit yoo xam moom njiitu réew mi Macky Sall kon euh, mu mel ni rek koo xam ne euh, ab naqar la am euh, jëmee ci ñi nga xam ne ñooy ay détracteur maanaam rek ñi nga xam ne ñu ngi wax jënoo ci àdduna wërngal këpp lu jëmee ci bilan immatériel mel ni rek kuy tilmal dërëm moom njiitu réew mi Macky Sall kon di xam la rek ne amut benn tentative boo xam ne rek jëm na ci maanaam indi déstabilisation ci mim réew di Sénégal te moom mi ne mu koy jiite moo xam ne rek euh, dana anto ci nguuram moom chef de l'État doon kon yëkkati ay kàddu niki talaata jëlee euh, ci ab symposium euh, de nga xam ne rek ñu ngi ko duppee les années de Macky Sall moom nag lu jëm ci li ñuy duppee ay prisonniers politiques fii ci réewum Sénégal mu weddi ba mu set wet nee na nag. Euh, ci gouvernance bi euh, danay dégg euh, parfois nit ñi di wax ay bilan immatériel ne ne lan mooy bilan ban bilan immatériel sax la njëkk wax naa li nga xam ne mooy bilan immatériel amut loole ana lan nag lay firnde dëgg-dëgg su fekkee rek dañoo bëgg ak akub débat nañu teg débat bi te ñoom ñi lee su boobaa rek dañu leen tontu su fekkee nag lu jëm ci droit de l'homme la fii ci Sénégal nag moom ay agent indépendant ñoo koy notee amul benn prisonnier politique prisonnier politique boo xam ne am na fii ci réewum Sénégal te nag war ñu sax créer li nga xam ne moo di confusion maanaam indi ay jiixi jaaxa ngir nag rek gën a euh, lëndëmal xel euh, loole euh, ki ko yëgati kàddu yu ne mel di njiit réew Macky sàll mer ba futtu la def nag moom njiit réew mi di xamle rek ne pouvoir yi nga xam ne ñoo am ci réew mi nu mel pouvoir yu indépendant lañ Sénégal dafa nekk réewum démocratie mu démocratie bu am doole sax moo tax ba li fi am rek mën fi am ndax nit ñi dañoo jàpp ne président de la république dafay am euh, teg loxo goo xam ne dana koy def ci juge yi waaye ca conseil constitutionnel ba ci cour suprême euh, gis nañ li nga xam ne xew na fii bu yàggul euh, loole rek dafay war ne indépendance boo xam ne juge am nañ ko fii ci réewum Sénégal ay menaces yoo xam ne nag mënees nañu jàppee nii noo ne moom président Macky Sall def na ko ndax nag nee na rek su fekkente ne rek lu jëm ci wàllu jàmm la ñi nga xam ne nag dañoo jog ngir installé kaw fii la ci réew mi moom duñu ko am ngir moom ne loolu du ko seetaan benn yoon ndax devoir la ci état bu Sénégal te moom du accepté benn yoon ci réew mu ni mel ñu fiy indi ak pëccëxoo nee na nag responsabilité état la te su ko deful rek dafay fay ci mission bu njëkk muy garanti li nga xam ne moo di sécurité bu citoyen ak seen i jàmm moom nag njiitu réew Macky nee na nag su fekkee ne rek loolee des ko ci mere ko ci mere euh, il est désolé euh, mu ngi euh, mu ngi lay masawu waaye nag wax dëgg fi yàlla loolee lëggéeyam la mission la te moom mi ne nag lu seetaan benn yoon Euh, fii ci réewum Sénégal daal ay doomu aadama di fi daal di semé li nga xamante ni moo di kawo ba tax lu nu mel rek ku ko fi bëgg def doo mën a séq ak moom li nga xam ne moo di jàmm jërë ngeen jëf mbokk yi li moo doon xibaar ci bile vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo bu ci yàllaandee laataa loolu woy leen di like demone ci seen chaîne ku déggan ci page bi tabane ko ñoo ngi lay ñaan nga abonné activer sa su ko defee lu dugal ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk jot cantangarab